moon na fi muy 1000 milliards yu Covid yi euh, jusqu'à présent defuñu lumière sur cette euh, sur ce scandale yow 1000 milliards Covid yooyu est-ce que da ngay sàkk jusqu'à présent ñu leeral ko. mais dañ ko war a leeral xam nga du du du du du taqal cest dafa am corps de contrôle muy corps de compte mu UG ñoom ñoo génne seen rapport mais rapport dañ la buñ la génnee toute personne buñ ci cité est supposée être innocente. jusqu'à preuve du contraire parce que man pour man entre taqal nit ak am ay preuve c'est différent mais nañu eggale mbir mi parce que ñun nekk nañ suñu hôpital ñu nuy wax naan dugal nañ fa ay milliards te man teguma ko bët tey ji dañuy toog même ñu ñu naan la jëndal nañ la benn matériel boo xam ni pacotille la je donne l'exemple scanner une fa am nañ benn scanner boo xam ni temps Modou Diagne Fada la woon scanner boobu mu ngi fonctionné ba tey ëpp na 12 ans xam nga kooku amortir nañ ko ñu jënd scanner bu bees boo xam ni matul 2 ans ou 3 ans chaque 3 mois ou chaque 6 mois mu panne. Mm-hmm. kan moo ko non ci ci ci ci Covid ci oh. période Covid bi. waaw ah, dama lay wax xam nga dañ lay wax ni xam nga par saa yi du ah, question rek du du du wax rek jëndal nañ la. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est-à-dire technique ak matériel bi est-ce que pacotille la man dem naa dans mon service ñu demandé woon parce que dañuy soxla ay vergo ergométrique ergo. vélo vélo yooyu pour ñuy am problème cardiaque yooyu bu ñuy def da ngay am paramètres yeeg yëpp pour ko génne mais ñu jëndal ñu vélo kër yi et pourtant lan ko facturer li ñuy facturer vélo ergo la. Mhm. vélo yooyu yëpp yëpp paan na. différence bi ay ñaata la. non par exemple différence. Mhm. loolu loolu wax nee naa la man li taxoon ñu dàq ma ba ma dem course <laughs> ba ba ba kay def course prep appareil amplificateur de brillance la amplificateur de brillance boo nekkee bloc opératoire mooy bu fekkee da am matériel stéréosynthèse mooy weñ yi ngay dugal noonu. di nga koy mën a visualiser ak ak yooyu moom mooy facilité comprendre soo amul doo mën a opérer ci loolu. Mm-hmm. appareil temps yooyu Sonatel may nañ ci benn boo xam 30 millions la ko jëndee man je suis membre du conseil d' administration parce mm-hmm. nu demee bi nu génnee ñun on avait budgétisé à 42 millions. Mm-hmm. ñu toog appareil bi xam nga ñaata la ñu ko jëndee. 108 millions. regarde entre 42 millions et 108 millions. Ah, l'écart est énorme te appareil bi bi ñu ñëwee amul autonomie autonomie mooy lan mooy tey jii par exemple bu courant coupé normalement amplificateur a am autonomie pour continuer fonctionner parce que tey mën nga am sa ordinateur parce que mënoo opérer ba ci biir. courant coupé muy tàgg. appareil boobu amul woon sax autonomie. yow nga bëgg ko non seulement surfacturé am na ay temps ma j'ai même les les la de la DCMP. parce que mm-hmm. marché yi foofu lay jëkk a jaar avant ñuy mm-hmm. ñëw. Mm. mais ñoom lu ñu mën mooy def ay réserve électrique mais bu ñu defee réserve ñoom ñu bindaat parce que la loi leur permet ça ne ñun malgré ça bii lañ bëgg. Mm. mënoo ci dara. d'autant plus que temps yooyu noonu aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon nekk euh, au devant du front mooy ñi nga xamante ne moom mooy les jeunes médecins wala yi nga xamante ne ils sortaient récemment de de la faculté ñoom dañu amoon ay arriérés par rapport ak ci centre yi ñu doon traité les cas de Covid là ñoom aussi amoon nañu ay problèmes pour ñu fay leen tout ça. am nañ mais bon je pense que on a on a on a régularisé xam nga Oudou euh, nu mu tëjee Oudou mooy yaa ngi tellement de dérapage c'est-à-dire que même liste yi liste amul benn moyen de contrôle. demoon nañu ba élargir ko au niveau des collectivités territoriales type hmm. mais finalement amul woon sax loo xam ni mën na permettre ñu ne kii mooy ayant droit ak kii nekkul ayant droit hmm. et y a eu beaucoup de choses yoo xam ni c'est pas catholique comme <laughs> di certains parents et c'est ça la vérité am na ñu bëri fayuñu leen woon mais am na ñoo xam ne ils ont demandé mais c'est leur structure peut-être ñoom ñoo leen boole woon ci kii te te te te joxuñu leen ci xaalis mais je pense que pour l'écrasante majorité xëj na jot nañ xaalis mën na am nag ñoo xam ne jotuñu temps yi au niveau SAMU ñu doon poser le débat et on avait interpellé le ministre ils nous ont dit waa waa direction des ressources humaines nee nañ ñoom yoreeluñ kenn xaalis bon je suppose que peut-être wax nañ dëgg bu fekkee nag ñoo leen yoree seen xaalis na leen na leen na leen parce que nit ki mënoo ñëw di ko liggéey loo aussi comme li ngay wax c'est des médecins qui sont sortis avec le diplôme qui pratiquement étaient au chômage occasion bi ñëw ñu woo leen ils sont sacrifiés et c'était des zones sensibles parce que temps yooyu Covid bi c'était pas permis à n'importe ki d'être dans le salles parce que virulence bi virus bi amoon doyoon na waar ba bakkan sax xajoon na si xëy na ñu nous on a la la chance sur le plan immunitaire les noirs ni mu doon reyee France reyee wu ko ñun mais le personnel médical euh, bien de soins en France vous avez tellement de morts. fii ay de beaucoup de morts aussi au Sénégal mais empleur bi eggul woon foofu. donc vraiment tamit nit ñi bu ñuy jël risque yooyu aussi bu ñu ñëwee nga mën leen a fay seen xaalis mën leen ko jox ko mais est-ce que mën nga revenir wax tax gars yi di révolter Matam Matam Matam mooy li may wax rek xam nga par exemple aussi il faut ñu bàyyi di jël rek un jeune qui vient de sortir ñu koy jox responsabilité xam responsabilité du ci soin parce que un médecin chef man déedéet on on demande pas d'expérience l'expérience mën nga ko ak acquérir sur le terrain c'est-à-dire aujourd'hui on peut t'affecter dans un district a organisation il y a chef de district mais tu peux être médecin chef adjoint au niveau district si le médecin chef titulaire va en supervision mën nga ànd ak moom di nga xam lan mooy poste de santé ak nan lañ koy gérer dans le cadre de la planification dans le cadre parce que foofu politique préventive moo ëpp li mu fay am loolu la la wax ma je parle pas de de de ñaareel bi je ne parle même pas d'expérience en matière de clinique parce que am na loo xam ne on n'a pas besoin d'expérience tu en tant que clinicien xam nga sémiologie tey jii bu ne lee méningite gis nga un cas tu peux la distinction entre méningite tétanos ak neuropalu parce que xam nga ban type de fièvre la xam nga aussi lan mooy porte d'entrée wu maladie bi mën nga xàmmee signe de Kernik signe de Brudzinski pour la méningite mën nga xam regard plafonné de l'enfant à partir de là di nga yow xool ci sémiologie bi xam ni kii moo ko jot loolu on l'apprend à aucune personne ñoom jàng nañ ko avant ñuy ñëw mais le problème c'est sur le plan administratif le problème majeur c'est le plan administratif parfois les gens confondent autorité et chefferie est-ce que xam nga baax li ma la l'autorité du yow yaa koy wax nit ki mooy xam lan mooy pesanteur c'est-à-dire tey jii xam naa lan mooy sama relation hiérarchique ak ki nga xam ne moom féete kaw mais yow boo ñëwee yaakaar ni nit ñi say doom lañu. yow yaay seen chef il exécute des ordres ci armée rek la am amul ci feneen. il faut considere les gens comme des collaborateurs je l'ai un entraîneur loo aay aay si tu as de jours si les jours refusent de se donner sur le terrain match doo ko gagné ay jours dàqalul nañ seen entraîneur parce que tout simplement footballuñu résultat amul ñu dàq mais quand vous venez bu mu njëkkee ñëw bu ma lay wax ni y yàlla responsabilité du préfet xamul booy ñëw nañu muy jël fa ay acte mais mënoo ñëw tey ji un poste de santé c'est un poste de santé c'est différent des mais mënoo ñëw tey ji nga jël un infirmier d'état bac plus 3 nga affecté ko ci case de santé tu un non diplômé tu le ci poste ICP lañ koy wax sax infirmier chef de poste nga dem yow juboo ak gars yi nga dem ut ay boo yu doon chômer fii say mbokk lan nga indil leen non ñu nekk nekkuñu woon Faatam nga indi leen leen jox poste parce que tey ji gis nga ni l'écran à plus de soixante-dix pour cent du personnel mënoo leen def loo ñu def mm-hmm. nga bëgg leen remplacer ñooñu. ku doon def loolu. non lui. Diouf Sarr. déedéet non non ah, de non Diouf Sarr kay jóge na fi bu yàgg <laughs> man ngi koy nuyu moo mon ami mon frère <laughs> non je parle on parle plus de Diouf Sarr Diouf Sarr pour ñun jóge na on parle de du médecin chef du district de Matam. Mm-hmm. leneen lii ñëw na dans le cadre mu ñëw ñu ne bon comme le syndicat est fort là-bas bugg leen def loo ñu def il fallait que les têtes de pont ñu tas leen il a voulu prendre une décision booy xëy ñoom ñëpp mer commencé liggéeyuñu le préfet de Matam m'a appelé parce que demoon na ba mënatul woon ci ci ci ñoom dara ma appelé ma ñëw ñu seddal affaire bi teguñu ci ay ay jours mu jël note jël dix-huit personnes ñëpp affecte leen affecté leen fan. ci ay yeneen i poste quoi c'est-à-dire rek <laughs> non extrême gravité mais affectation pour mu am il y a ce qu'on appelle les commissions de redéploiement du personnel. c'est-à-dire on dit que le poste là est. du même poste bon mënu ko yóbbu feneen. mënu yóbbu feneen am na ci kenn koo xam ne jëlee nañ ko Matam yóbbu ko Kanel. Hmm. ce qui n'est pas du tout normal. am na su faire ça. nu amul pouvoir c'est l'autorité administrative qui signe. Ah, loolu tax ma lay wax ni. y a dama ma lay wax lu leer nañ la parce que. c'est un acte administratif. Mhm. le médecin il peut faire la proposition moo noté au courant mais si c'est signé c'est l'autorité administrative ki signe. Mhm. qui signe ça c'est le préfet mais c'est si proposition di médecin. Mhm. alors que nous on a toujours travaillé même au niveau national dans les commissions danaa poste bi lii mooy profil de poste bi on on dañuy def appel à candidature nit ñi postuler loolu ci lañ moom mës a am ci ban beaucoup de districts boo bëggee nga dem. ku gagné poste bi ñu yóbbu la mais mënoo toog am na yoo xam ne y' a pas dans la dans la transparence dans le cadre de la de la gestion. surtout les les les fonds de de de dotation non daf ko affecté mais ñun xam nga ku la jiitu ci mbir dañu wax ma waxante ak sama gars yi man leen il faut pas vous laisser piéger ñu ne duñ dem coow lu bëri amoon foofu Matam villageois yi ci boppam xam nga da ngay tàmb ak nit ñu ne ñoom kii du fa jóge mhm. ma def ak ñoom benn réunion en virtuel je les ai dit yéen ñëpp dem leen ngeen defi seen prise de service. parce que en matière d'administration on te dit si vous êtes affecté allez rejoindre votre poste après nga dem truc man leen bu leen leen may dara maintenant ne collaborez plus avec lui ñoom ñëpp ñu def xam nga ñoom dafa am fu leen doon séntu booy calme waxuñu dara ñoom ñëpp ñu rejoindre fekk amoon na groupe xam nga léegi pratiquement village yi dañu sori les gens ils travaillent sur WhatsApp ils travaillent par mail ils ont décidé tous de quitter les groupes WhatsApp ki les liaient avec le médecin chef de ison ont ko que dootuñu collaborer bu leen soxlaatee convocation na envoyé kayit bu mu fekk leen xam nga mënoo village yëpp nga yóbbu fa premier jour yi ay gendarme la <laughs> la joxoon affaire yi pour ñu yóbbu mais finalement xam ne mënutul dem booy activité yu bëri ñu ne dañ koy boycotter seen yoon nekkut ci c'est le gouverneur li même qui nous a appelé au téléphone parce que la situation était entre train de truc mais ñun mënuñu nekk kilifa saa situation ñàngee nga woo ñu ñu nekk fii à Dakar ñu waxtaan ak ñoom ba nu saa yu loolu seddee nga commencé waat leneen moo tax ma ne la les autorités administratives ñoo war a xam léegi nag est-ce que benn nit kooku war na toog mettre en péril la situation sanitaire de tout un département parce que ñi war a def seen rapport defuñu ko et c'est ce même gouverneur et ces mêmes autorités de Matam qui ont fait des rapports sur une sage-femme qui avait fait neuf ans là-bas ñu affecté ko et en matière d'administration comme li ma lay wax la affecté da ngay def da ngay def cessation da lay defal cessation nga dem defi sa prise service ils ont refusé d'exécuter note boo xam ni fii la joge ministère la santé comment on peut être quelqu'un qui est sorti de la plus haute école d'administration ENA nga xam li administration wax ngay commenter un acte qui vient d'une autorité boo xam ne moo la gën a kawe la ministère la joge agent bi ñu affecté ko son droit c'est de venir ñu defal ko cessation ñoom ñu bañ ñu ce qui est grave ça veut dire que man demee en tant que agent wax naa ko keroog ni ko demee Matam bu ñu fa affecté agent mu bañ a def prise de service munoo ko yóbbu ci yoon parce que yow mi nga xam ne yaa war a waa faire respect yaa njëkk a violer les textes préfet bi wax naa la keroog def na fi benn not dis war ay disposition code du travail ak ay grève qui n'a rien à. le ministère de la santé ah, normalement ils ont leur mécanisme pour avoir des informations. ce que nous on les on les on les on les booy yi ñu ngi ñu ngi ils sont confirmés bon on les a informés de la crise et de ce qui se passe. Mm-hmm. xam nga waroon nañ am rencontre avec l'autorité parce que rencontre nañ ministre la fonction publique pour éclairer sur ça xam nga booy yi aussi ils ont fait waxoon naa leen barki démb ñu bind. ils ont fait la lettre def naa aujourd'hui dinañ ma ko envoyé parce que man nekkuma sur le terrain donc je ne veux pas aussi que ci samay base lu ñuy wax la ñu def lu ñuy wax nañ ko bind ça mhm. concerne la section on va on va saisir kii euh, de droit par rapport à ça mhm. li ki des nag aussi mooy bu ñuy fal nit ci poste mhm. nanu xam mission bi ñu koy jox nit ki du rek am sa am jàng mais nekk nit laa wax nekk nit mooy ci doomu aadama ngay liggéey leneen li aussi ci nga xam ne lan mooy administration ak gestion ak management soo ko xamul rek tu passes complètement à côté. may fàttali euh, euh, depuis euh, dix heures nga nga nga waroon dem ndax dangaa am rendez-vous mais duñ la bàyyi te àdduñ ci actualité sànq évoqué nga ci mbir yu bëri déclaration de patrimoine et tout mais li xew Sandaga démb yow en tant que syndicaliste ban ban ban gis-gis nga ci am ay marchands ambulants di sànni xeex ay agents.